nga jëloon mbër ba nga xamante ne bii mbër bu naqaree bëreel la muy ngeer bu zap euh, bu ñu ñëwaatee ci ci ci combat bi est-ce que yaakaaroon nga ne combat bi ni mu terminé nii lay terminé. Hmm. waaw man moom wax dëgg yàlla moom man su may dem si làmb lépp laa yóbbaale waaw lépp laa yóbbaale parce que xam nga lu tax loolu euh, làmb la wax bëri dóor wala dóor bëri kon da yóbbu si le plan plans si mystique si préparation su comprendre si wàccaay bi si lépp ngay yóbbu pour am ndam làmb doo bàyyi benn faay. kon bëre dóor bi waaj dóor mu daanu bi waajoon nga ko. non waajuma ko man dama ñëwoon pour bëre ngeer. waaw dama ñëwoon pour bëre moom soo xoolee sax ba arbitre ne damaa dox si kawam tàllal sama loxo pour jàpp ko pour ñu bëri wante moom moo nangu woon taxaw ba pare ba mu sànneeku tamit ma xam ne fii il faut que ma parce que su ma mun na ma juumloo daan waaw parce que ku nanguwut a bëre ku bëgg a bëre bokkul. comprendre loolu tax nag ba mu dóoree ma riposté par yàlla may ma ndam wante jëlu moon décision pour xeex ak moom damaa jëloon décision pour bëre ak moom. ñëwoon pour pour pour wane bëre. man damaa mën a bëre wax bi rek moo fi ne. ñu bëri nee na nag xeex ngam ci làmb. waaw loolu lañ foog rek xam nga làmb ñu ma daa xeex ñu ngi si làmb te làmb soo mënee xeex kese di koy def doo contrôler sa bopp wala soo mënee bëre kese di xeex doo contrôler sa bopp ñaar yëpp day tolloo nga nga xam ni ngay contrôler sa bopp. nit ki nu muy ñëwee nga jàpp ko nit ki nu muy ñëwee nga génne ko na ngay génne na ngay déplacé yan pied nga war a teg yan xam nga loolu fokk nga mun ñaar yëpp nga soog mu soog a yomb si yow. bu ñu ñëwaatee ci combat bi démb ñu gis arbitre soufflé comme ni nga ko waxee sànq nga nga nga dox ci kawam euh, bëggoon a jàpp pour bëre mais moom moo la woo ci xeex boo ñu doon ñëwalaat ci combat bi ni nga bëree ak moom arbitre soufflé na génn seen diggante yéen ñaar. waaw arbitre soufflé dox naa si koom parce que lépp lu fa war a am maa ko war a def lépp lu fa war maa ko war a def ma dox si koom ba ma doxee si koom lal sama loxo xam naa ne sama loxo bi da koy gêner su ma ko téye mën na pour mu dugg ma day yomb pour mu jege ma day yomb ma lal sama loxo tàllal ko comprendre nga dox si koom mu arrière ma bugg ko jàpp pour bëre moom mu bañ ma bugg ko jàpp pour moom mu bañ mu jékki-jékki dugg ma ba mu duggee maa moom ñu wéccoo ku kuwam dal ma ku kuwam dal ma. yaa ngi dégg non jël naa kuwam. jël naa koom koom dal ma koom ba mu ma dalee nag laa xam ne nag instant yi nag li jot jot nag si laa doxee si ko mbéb mbébaat xam nga mu ne day daw mu dóor ko euh, direct mu forcé ma arrière mu daw si mu dóor ko gauche ba mu defee foofu mu dóor dugal ko uppercut waaw waaw. mais mais moment bi nga ko dóoree mu mu samp bopp bi boobu lan nga sentir. non xam nga làmb day toll foo xamante ni sa yaram day tàng bon supporters yi nekk sa ginnaaw li nga bàyyi kër ga. gars yi la dar ñaan yi ngi si def préparation yi ngi si def yow munoo xam lenn tantew parewoo si combat ba toog moment boobu gisuma woon lenn lu dul victoire wante ba ma demee dox un pas deux pas soo xoolee tourné waat naa ñëw si moom waaw boobu sama xel dellu si waat na ma tourné waat ñëw si moom wante benn moment sama yaram tàngoon na mënu ma woon def benn réaction du dul dem sama yoon. dox nañ sa combat ak dañoo dox sama combat mu ne sama papa moo ne bu ma bëreek moom suñ jógee ñu ne yan promoteur ñoo fi ñëw Eumeu Sène junior dañoo dox sama combat moom mu ne Aziz Sall moo tax du ma bëreek moom di laaj ay cachet boo xamante général bu Fass dañ dem seeti mu jàpp ne mbër moytu wante ñoo yàq làmb yàq làmb ji ndax Balla Gaye su demee ba bëre booy ñaa mu Lo dem ba bëgg na nga bëre ama yaa ngi dégg Papa Sow dem bay bëre Siteu yaa ngi dégg est kon ñun suñ biir war nañ xoolaat suñ bopp affaire de tapette yi def amul sens am ñu nekk seen wet di wax ay waroo bëre ki waroo bëre ki te ñooñ duñ leen jox dërëm ñoo la ñu bëre suñ biir ngeen bàyyi yëfu non léegi sax temps yi moom grand contre petit dafa xew quoi euh, grand yi nekk ci kaw war nañu may sens xale yi nekk ci suuf ñu bëre may leen grand yi moom ñu ngi def seen devoir ku su mel ni euh, euh, ngeer bu sab si grand yi la bokk te damaa may sens ande man li may wax mooy ñoo xamante ne ay moroom lañ ñu war a jëflante. war a bërënt war waaw. ah mbër kon daal mbër yi da ngaa ragal ni moom fi mu toll nii am na ñu ciy ruux. gars ay tapet lañ ñoo ñëw ñu bëri man fu ma nekk. war gars yi gars yan gars ñoom gars yi mbër yi la ñëpp nag ñëpp amuma ku ma bàyyi mbër yi war a bëre xam nañ seen bopp amuma ku ma bàyyi na ñëw ñu bëre. mais ñi nga war a bëre tuddal ma ci ñaar wala ñett. dégg ma Gris na ñëw ñu bëre rakku Gris Bordeaux na ñëw ñu bëre làmb la amul amul lu ma leen di pardonné. champion foofu kawe na de. déggoo lu ma la wax. foofu diis na. waaw xanaa kon kon kon bàyyi leen mu continuer kon di jël ñu may jël di leen doon ñuy wàcc lu diis saa bëgg de. avant su Gris 2 bu ñëwee nga jël. déggoo ma su ñëwoon tey jii nii tey tey ma jël ko suba suba suba ma nekk si munu ma lekk munu ma fees munu ma ko lekk munu ma yëfu góor la làmb la ku mun sa moroom daan nit daan na fi nit a munu ko. nañ bàyyi ñuy def lii day yàq làmb man musuma kenn musuma gis may waxee nii ande su ma demee bay waxee nii làmb ji moo tas moo yàqu làmb amatul valeur amatul sens les gars yi dañuy négocier làmb ji te làmb bu njëkkoon amul négocier loola waroon ñu daan def ay kalaaf di boole ay ponkal ñuy bëri seen biir ñoom Modou am nii ñoom Balla lu ñu am dañ ko liggéey de ay kalaaf lañ def seen biir ñuy mbëkkante seen biir ay benn benn di génn ñaar ñaar di génn ba tey xoola kenn mënu leen blâmer si lenn ñooñu xante yan booy yi ngay gis ñëpp dañuy négocier ay làmb. da nga jàpp ne booy yu bëri dañ leen di yoon. pour dëgg balaa xam li mu xam li mu mën dugg ci dugg ci. si làmb dund si làmb ngeen nekk demoo leen lii Leewtoo TV la nekkul Leewtoo nekkul Leewtoo karaté Leewtoo mooy da ngay Leewtoo ñu filmer la yaa ngi dégg est te chaque jour fu làmb am ngeen dem xam ngeen ni yoon carrément xam ngeen yenn combat yi di am du yoon yaa ngi dégg est-ce que ne Gris 2 ñëw ñu bëri amul combat bu ma ñëw ñu bëri. yow fi mu toll nii pour Gris 2 Gris 2 nga joxoñ ngi mi ngi jàkkaarloo Gris 2 ñaata victoire la ñaata victoire. maa ngi ñaata combat. 15. 15 combat 13 ah. bi baax moom su ma ko. amul lu diis si man yàlla rek a diis si man wax de amul lu diis si man. xale bu faas xale Tambacounda sax. waaw. Gris 2 booy yi nga fi de. ah déggoo ma la wax loolu laa bëgg damaa bëgg combat boo xam ne damay bëree bëree bëree lu rëy ñu dóorante bëree jàppante ñi ne dee mooy dóor ma koy yëg ma koy dóor ma koy yëg ñuy bëree Gris 2 mun na loolu loolu dama laaj ko de. mbër kàddu gu mujj gi lan. sant gërëm rek. sant parce que am na loo xamante ni maa ngi koy bëgg a wax te sama dafa génn sama xel ñoom Gatizo maa leen di gërëm bu baax a baax waaw ñoom Gatizo maa ngi leen di gërëm bu baax voilà jaajëf jaajëf jaajëf Khadim Bamba euh, euh, kooku moo nekkoon blende dégg ngeen ko nee na nee na fi mu toll nii xelam mi ngi ci Gris 2 nuyuwaat tamit waa Cambérène